seen émission bi ñu tuppee Ëttu Murid te di ko amal dimanche ju jot bu vingt jotee ci guddi ñu am mbégte tey jii di ànd ak yéen fii ci kër sëriñ Cheikh mu sëriñ Salihu yal na ko fi sun borom yàggal lool te ak wéram ngir ànd ak yéen ci jataay bu am solo boo xam ne danañ ci fàttaliku kenn ci saalihaat yi mu di soxna Xadi Mbàkke moom sëriñ Salihu di way wayjuru sëriñ seex ñu àndandoo nag ak sunu kilifa di Serigne Saliou Sylla feggoo ak Serigne Cheikh Amar Alaaji Fallou Sylla nekk ci wàllu caméra bi ñu leen di nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér yaram waaye di jagleel ab ziar ak ñaan ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mu Serigne Saliou yàlla na ko yàlla may fan wu gudd lool waa ànd ak yaram. dolli ko kattan ba naal yu mu naalal lislaam mu àggale ko nuyoo boobu nag ñu jaarale ko ci doomam di soxna muslim Mbacke moom sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu mu àndandoo ak mbooleem turandooy soxna xadi yi waaye àndandoo ak mbooleem soppay soxna xadi yi ñu daje fii tey nag ngir waajal ziar bu am solo boo xam ne at mu jot danañ ko def ci loxoy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke waaye ñu feggoo ak sëriñ Saliou si rek ngir mu fàttaliwaat ñu jigéen ju baax jooju nga xam ne bokk na ci saalihaat yi bokk ci jàmbaar yi nga xam ne bi sëriñ saaliwuy liggéey moom ñoom ñoo àndoon liggéey boobu ba lu ëpp ci njaboot gi tey jii mooy seen yaayi daara mbooleem tool yu jëkk yi nga xam ne sëriñ saaliw amoon na ko ci sow bi daara jum ci mën a doon boo demee da fekk na sëriñ xaadi soxna xaadi moo ko gor loolu nag sëriñ saaliw si la dund na ko ànd ci ak moom lu bari mu man ñoo fàttali jëmm jooju naka la adduna mën a royee ci moom waaye jigéen ñi nga xam ne ñoo bëgg lu baax nan lañ mën a royee ci soxna Xadi mu sëriñ Saaliw. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. noo ngi yëkkati nuyoo bu sell bu tedd jagleel ko borom barab bi di sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw te di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér ñu jëlaat nuyoo boobu nag. jagleel ko doom ji di soxna Muslim Mbàkke di ko yaatu Pastef te mën a sonn ci li leen dajale fii dajale nu fi ñu di ko ñaanal sunu borom dajale ko feex ak taysiir ñu jël nuyoo boobu itam jagleel ko mboolem ko fi teew di yaay di doom di bajjan di maam lii ñu jataayoo nag dafay mel ni buñ ma joxee kàddu ma di ci wax lu yàlla dogal la waaye xàmme naa fi ay xar kanam yoo xam ni la ñuy dund ci Soxna Xadi ak lañu ca xam dab ca du yomb waaye nit nag lu ko ñor da cay neex a wax loo ba tax na kon fi ñuy tàmbali sunu kàddu rek mooy sant mbooloo mi teew mépp ci turu Soxna Musli te rafetlu nag seen jëf lool xam naa du ma tudd kenn waaye danaa ci jagleel ñaar nag ak tudd mooy soxna Maguette Xolu ak sa soxna Ndey jaane ma ngoog ñaar ñooñu dafa am ku ma dey fii ni ma bokkuñu sax ci turandoo yi waaye ci soppe yi dëgg lañu bokk taxawu nañ itam yor carte barkeelu yi ba liggéey ci liggéey bu rëy ba andi ci lim boo xam ne tudd na ko ba mu dugg sama nopp li tax ma tudd leen nag damaa xam ne ñi fi teew ñëpp ginnaaw ñooñu noonu lañ demee ku leen tudd ñëpp nga leen tuddal tuddal leen saw seen boppit nag ndax koy def lu baax waris na laa dégg ba mënees la caaro yi fa ngay jëfee lu baaxee boo fa àggee war ngaa xam ne ràññee nañu la fa te lii kàddu la guj bàyyi ko ci man waaye li ma leer mooy soxna musli wax na ko ak sëñ Cheikh te dina ko waxaat moom te ñu dégg la foofa rek mooy li am solo soxna su baax sii nag nga xam ne mooy soxna Xadi moom mooy yoonu murit waaw kon <laughs> ma dolli wàcc loolu ndax maa ko wàññi woon waaye daf maa wax ne pir lañ jógee ba fii loolu day wane ne Pastef la ànd ak jëf ju rëy waaye dama ne soxna nag moom mooy réew mi mooy Serigne Touba ndax ku xam na ni soxna Anta mi nga xam ni moo tax ñuy wax maam si Anta tax ñuy wax sëñ Afe moom moo meññi maam bu sa Touré mi meññ soxna Xadi te ñetti jigéen ñii ci yoonu murit mooy Aysa ak Sadio ak Yacine kenn du leen umpale mbiram nag ma nga jaare ci Yacine waaye nag teewu koo cëru nag ci Aysa moomee ndax moom dafa dugg ci sëriñ bi ci wàlluk Ibrahima Awañang duggaat ci sëriñ bi ci wàlluk Balla Aysa duggaat ci sëriñ bi ci wàlluk Soxna Busa mi maam jaar ak bokkal waaye loolu nag ak gàttal man na cee doy waaye li nga xam ne wareef na ko yaatal te xóotal ko mooy soxna Xadi dafa ne ko nit ku baax ku yaatu woon dënn ku banoon muñ te yàlla daan ko teg nag lu mën a muñ lu jar muñ ndax fitna joo foog ak joo foogut daana ko gane di ko xëy di ko gont waaye yàlla mayoon na ko nag bu toogoon ci diggum néeg buntu sarale ne fi ki taxaw ci bunt bii di ko tagg kee taxaw ci bunt bee di ko xas la mu leen di jox du leen xàmmee xolam daawut yëkkatiku mësula mayit kenn nga fexe ba jëmbat ak noonoo sa digganteem ak moom am na jëmm juñ mën naa ko tudd waaye du ko tudd ci waa kër sëñ Saaliw baax la daf ma ni fi ma gën a soo soxna Xadi boo commencé na gëj ba romb ko daf lay woolu nga ñëw boo ak mu la toogal fii nuyu ma soog a dem ko kon xamut bëggu bëggut kenn ku niir def luy niru ak dogoog moom. Serigne am na fu mu ko tegoon foo xam ne fu sori la ndax ku ne xam ne Serigne Saliou li ko gënoon a ñor mooy liggéey ci donga yi waaye donga yi nag daana ci liggéeyloo soxna Xadi liggéey yu rëy te lu may wax looy nag man dama mën a tudd tur am na jëmm joj mi ngi fi borom barke boroomu tur la ay goroom a ngi ci biir mbooloo mii. wéradi woon ne wéradi gu jaaxaloon Serigne Saliou ba mu ko boole soxna Xadi soxna Xadi daf ne sasu naa bis bu ne ma toggal ko ndawal am ko waxee nag soxna si danaa waxtaan ma nag ma ñaanal ba lii ma sasoo kon ma man ko mu yor yor ko yor ko di ko faj ko faj ba koo ko wér ba dellu ca daara ja kookee mu doon wax ñaanal ba mu dikkee ne ko maa ngi sant yàlla ndax loolee ma sasoo woon bis bu ne mooy njëkk a mat sama dépasse bu kër gi te dépasse bu këram nag lu rëy la woon ndax man 77 la ma sëñ Saliou andi fi may jàng xam-xam te booba kër gi lekk fi yombul waaye nag lu mu jafe-jafe saa soo demee këram sa xol sedd damay wax ne am na loo xam ne koo koy wax danaan diw lii la ko neex mu di ko wax waaye demeewul fekk na la demee. moom daana yor ñam woo xamante ni wërta mën a suur juróomi nit waaye dana ca regal fanweeri nit xanaa loolu barke baatin la bu ko suñu defaloon. te boo ma saana fi moom pël yi jógee ci ba di ko jaay suñu soow bu soxlaa day jënd bu soxlawut day jënd. tey itam ko toog ba mu jënd ba dama daf lay toogloo la mu jublu mooy lépp lu dikk ci loxoom mu jox la ca loo xam ne boo demee dépassé ko mbaa mu nattal la ab ceeb jox la. am na jëmm jooju nag dafa maa yóbbante daaw yóbbante waat ma ren muy Serigne Saliou Guèye nee na ma damaa yor oto bu màggat dépadé ko tëma def ca gasoil gën ma të. ak tabaski dëgmal fenn fa ma jaar ba am gàtt xaw ko ma xëy nag dugg dëkk bi ndega sama soxna xëy na ñëw ci soxna Xadi ba mu ñu ñëwee nuyoog moom mu ne ko ma ana sëñ Saal mu ne ko ma nga fa mu ne ko mbaa am na ab gàtt mu ne ko ah, bàyyiwuma ko ci kër ga de mu toog tuuti soxna see fecc ab pos-posam dindi ñaari téeméer ne ko jëlal lii te womat gàtt ba it ko ko balaa tëstisee ko wuti taam gi du yomb koo xam ne man lu lu toll noonu ak na ma xetlee foofu dara tolluwu xel ma ak fidwa ak njàmbaar ga ak bëgg sëriñ saaliwu buñ la ko dee misaal say rangoñ dana sotteeku ndax xam nga xew-xew bëree bi xewoon njurul te ni ma doon waxee rek ñu fi ne ku ci ne doon nga ca dara ba soxna su baax soo seepal ba fettoon ko ca bët bët ba ba ñu demee di ko lijjanti soxna xaat dafa laxasaay jëru kuuram ni bu ca xeex waree mooy jiitu ñëpp aaye ko ba mu àggee pël baa nga tuddoon Abdou Diouf ba mu ko gisee xàcc kuuram ga pël ba xàcc jaasi ja kenn ci mbooloo mii borom këram moo yenu pël ba teg ko ci suuf ñu gàdd ko yóbbu ca daara ji yeew ko ca rat ga sun borom intervenir ca bu rëy nag ndax pël ba dafaa jógee dem Saalum daja faaka naar ñu tàpp ko bañ ko tàppee yemuñ ci ñu ray ko kon boo séqee borom bayti nu mel noonu la sa mbir di doxee dëgg la kon ku ñuy tudd di tudd soxna Xadi te ne ay jikkoom ñàkk jël ca donte juróom-ñaar la ah kon yéen da ngeen raw ndax soxna ku jël bennam danga nekk sangu adduna ndax jigéen moom li gën ci moom mooy la soxna fa jaxat daan wax mën a togg mën a fóot xam aw defin xam aw waxin loolu moo doon li si ci soxna xat daan yare xëy na nag daf koo jëlee ca soxna faati ak doy loolu sa borom kër te bañ koo xeebal. ku ma saana wér ba agsi fii ci kër sëriñ bi damay wax ne sëñ bi da leen di boole waaye doonte sëñ bi boolewu la ak moom day waaxu ba fekk la fa nga ne laaj la ba xam sa tawat nu mu demee bu doonee loo xam ne docteur a ca war ca na ko sëñ bi taxawoo muy gunge la ca loola ba loola sotti bu fekkee dem ci maaxam yi la bañu ko bu dee fajkati wolof yi bañu ko leen la day sol aw dàllam di la ko doxal leen la day wut ay ndaw yu mu koy doxloo mosu cee dox nag lu mu essagee lu mas a dox rek jarag ju mas a eh, eh, eh, ragal rek yëkkatiku nga kon kooku bu su ko wutalee bis ñu teew fi kon jigéen ñi nga xam ne ñoo koy taxaw dañuy wax ne noonu noo ànd ak sangub jigéen ñi ku ànd sangub jigéen ñi nag tafas ko roy kon yow sa mbir sooyee na jàll nga yàlla nañ ko suñ borom fayal te dooli ko yërmade dooli ko am njéggal ca fa mu ne te taas nu ci barkeem te ngeen xam ne lu ko mat lu ne day sonle yëngutu bi bu ko mat la ngir yetti yëf benn bi mooy jëmmi Serigne Touba ji bi ci des di jëmmi Serigne Saliou bi ci des di jëmmi Soxna Xadi boo gisee nag tudd ma sëñ Cheikh sëñ Cheikh moom ba ko sëñ Saliou amee la ma waxoon dafa leer Serigne Touba sama waajur mooy sama sëriñ moom laa ko tudde moom laa ko féetale du ma ko taxaw ci dara bàyyee naa ko sëñ Touba daraam du takk allahu akbar kon dama ni yéen ñii fii war ngeen ànd ak xel mu dal war ngeen a yokkaat seen laxasaay war ngeen a yokkaat seen pëstéef war ngeen a xam ne am ngeen loo xam ne ku ne mën naa am lu baax waaye am lu toll li ngeen am moom yombut wala mën taam wala amut sëñ saa yoon daa ne ku am lu kenn amut da ngay def lu kenn defut lu kenn defut mooy lan laxasaay gi ngeen nekke mu continuer ndax man ka ñi ma ci xam te xam leen ci seen i kër la ñu nekk ci seen kër yi yéesul la nekkee woon ba ñu nekkee ci daara ji ak sunu xarit sëriñ Saliou kon day mel ni ay lamp lañ woon yoo xam ne sëriñ bi daf leen taale fii ci kër gi yóbbu leen fa ñu ne nekk fa ay lamp yoo xam ne dañuy leeral tollu ma ci wax lu ne man maa tuddi tur te bu ma tuddi tur ku ci ne xam nga sa bopp wala sa morom ma lay xoole kii la ak kii ay wu bari foo ko dégg du yéen werante wu bari foo ko dégg du yéen siisante foo ko dégg du yéen te ka leen moo leen toqee ci loolu kon ndam ak jaajëf am ngeen ko yàlla bu leen gi jàpp la di def yàlla na jëm ci kanam te wàcc ci seenu njaboot ci barkeb sëriñ Saliou. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou day mel ne ki ñu lay laaj xam nga ko ndax euh, li nga ubbee da wax ne mooy yoonu murit wala nga ne mooy Sénégal yaakaar naa ne maam Maharam mooy taali jàngu yi ne ci réew mi te moom amul menn maamam moo mën a dàq te du delluwaat ci maam Maharam waaye boo delluwaatee ci Ibrahima Awa Niang nag da cay ñibbi ñaari yoon te bu ñibbee ci Ibrahima Awa Niang Ibrahima Awa Niang moom la sëñ Tuubaa wax lu ñuy bokk ak nit rek moom Ibrahima Awa Niang mooy ñaareelu doomu maam Maharam bu góor ndax Ahmadou Fadimataa ko mag moom Mbàkke fanweeri at Ibrahima Awa Niang a ca topp Awa Niang ma ko jur. bërgël ma fent ma nga xamante ne bii moo jur aram ñang mi jur maam maharam ba tax ñu naan aram ñang mooy bàjjanam kon Ibrahima Awa Ñang maam maharam baayam la waaye nijaayam la moom moom moo mujj moom Mbàkke Mamba Laay sa moom ko moom moomee nag moo amoon soxna su baax su wax Jee Siise Jee Siise moomee nag mooy maami soxna Xadi mii Yacine Yacine Siise ak Jee Siise Jee moo jur Mor Jee Mor Jee Mor Jee Siise Mor Jee Siise nag Jee Siise moomee di nga xam ne mooy maami soxna Xadi mii nag moo tax ñuy wax Mbàkke Balla ndax keroog ba ko Ibrahima Awa Ñang di bëgg woon ginnaaw daf ko wax ne ko Balla Aysa mii mooy sama caatum baay waxuma la man waa yow mën nga koo jur waaye bu ma fi jógee nag na nga ko jox sa bopp kera ba mu ko joxee boppam la wax ne la la la la moor jee ñëw ci moom mu ne mbàkke kuñ fa woowati na nga wuyu balla bañ xam ne moo ko moom man moomu ma ko kon maamam moo tax ñu naan mbàkke balla kon soxna Xadi am na lu mu doon ci yoon wi soxna Faati Anta may taawub Ibrahima may taawub Ibrahima Awañang soxna Anta Ndiaye Mbacke mii doomi Ibrahima Awañang Faati Anta moomu moo jur soxna Boussa Touré mu jur soxna Khady kon boo ko doon seet day dell ci Ibrahima Awañang ci ndey ak ci baay Ibrahima Awañang bokk ak maam Maharam lépp maam di baayam kon yaakaar naa ne dara loon doon ci Mbacke maam Cheikh di nijaayam boole ko woon ak Serigne Saliou dem naa dem naa got dem xabban ñëw di ko ko nettali na ko man de damaa demoon got ak xabban mu ne foofa de ba ma fay nekk fallu sama royukaay soxna jaara la woon ba ma fay nekk sama royukaay soxna jaara la woon. mu ne ko lu tax sa kaay di soxna jaara mu ne dama koy xalaat ba mu nekkee poroxaan ak lam fa daan daj waaye nee na ma garab goo fa séen dagg naa fa tay ko ci góomub gone wala def naa ko laalo wala def naa ko mbuum nee na ma nee naa fa ab noor boo xamante ne bii ba ma sëñ Saliou wanee ginnaaw ba ñuy ruuj ba ba ñuy bëgg a bañ bañ formankoo ba ba ñuy bëgg a ruuj gisaatuma ko sëñ Moudou Moustapha ma fekk kere ba ma fa sëñ Moudou Moustapha di fekk ab wutir la war ba mu dikkee laaj ma ma ne ko sëñ bi de juróom benn weer yi gisuma ko mu ne bul jàpp ne dara ko tax a génn lu dut ne rek lu yor daara ji moo ko taxoon a génn waaye nee na booba donga bu fi fab wopp maa faj bu fi xiif maa ko jox mu lekk te kenn mësumaa xamal dara kon yaakaar naa ne buñ doon wut jàmbaar da ko mën a boole ci ñoom seen turandoo ci ne jigéen ñi mën ci jigéen ñi ci la bokkoon ba Serigne Saliou yu liggéey daa takkoon ak laxasaayam ànd ak moom di liggéey kon yaakaar naa ne tedd ngay jikko li liñ tagge yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy wa innaka la ala xuluqin azimin mooy yaa gën a mat nit ñi jikko ak bind waaye soxna Xadi boo ko xoolee bind ba mat na waaye jikko ja amut leen loo ciy xebet loolu nag rogalaat na ba àgg ci daara yi ba dongo boo dajeel mu man la la wax ne bis sàngam séqoon na mag soxna Xadi nangam day mel ne it dongo yi ku ci gën a ñor sëñ Saaliwu ci ab toppatoo danaan la naa la booleeg soxna Xadi loolu yitte la wala ak yëg la. waaw xam nga nit la mu bëgg la mu am ca la koy amee. soxna Xadi ma dafa bëggoon sëriñ Saaliwu woo xam ne jéggi na yàlla defoon xolam bi itam nag la ca ne ci yërmande mënee su ko nat ku mu seen ko ne mi ngi lijjanti ndax xiif nga mbaa mar nga mbaa rafle nga waaye nag laneen la cay dolli ko mooy bu la gisee gisati la dafa lay woo jox la nga lekk jox la nga naan mu wutu sëñ Saaliw ci yow digal la ne la daal di dellu ca daara ja ak tër bee du neex <laughs> fexeel ba am ngërëm ba da nga gis koo xam ne sax dana ci kër sëriñ bi dana dem ba am problème problème bi mooy lan mooy dana bëgg lu mu lekk te duutu a dem kër soxna Xadi ndax la mujj a tàggu toog moom mm-hmm. ci soññ ko ci dellu ca daara ja mm-hmm. waaye moom noonu yi nga xam la daa taxawoo nit ñi ci seen yaramu bopp ni leen leen daa taxawoo ci seen guruu mm-hmm. bu yàlla dogalee nag ngay ko muus koo xam ne la boo amee problème ñëw wax ko ko danga xam ne am xel moo ko gën le moom dana la wax kàddu yoo xam ne boo ca jaaree da nga am solution talu dara métti métti métti métti dëgg ma la wala mu dal la boo ñëwee wax ak moom bu la nettalee lenn ci li xew ci li jàll. ci moom wala kaneen wala ci li sëñ bu jaboote du rëy ak méttit wa kon moom dafa doon dundal taalibe yi ci seen guru di yokk seen pastéef di leen xemmeem loolu li ñu bëgg mu di taalibe te ku nekk ca kër ga man ngaa wax ni yitte ju masa maanaam bay génn lii di kees gi romb xay gi mosoo ko faa seen mu sol daal la ci buy dem ak buy dikk xelam masu koo daj buy dem summi na ko buy dikk summi na ko kii maanuk sun borom la goo xam ne am na ci lu yéeme nag loo xam ne xam naa mas naa ko wax sax sëñ Cheikh waaye masuma ko wax mbooloo waaye lu jot day jot kero ba mu génnee àdduna tab jàngkat dafa baaxoo xool alxuraan ak jéem caa xam ma ni man da waay maa ngi ubbi téere bii di laaj sun borom woon ma dara ci mbirum soxna Xadi ba ma ne ubbi téere ba lam ma woon muy inna lasina amanu wa amilu saalihat yahdihum rabbuhum bi iman tajri min tahtihimul anhar ba ci andi alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag la ab jullit di wut dellu ci san boroom ci fekk mu sant la nga sant ko nga dugg ci xéwal goodu tàggootil mukk te ko xeeb loolu nag du lu woyof ndax alxuraan boo ko jàngee boo ko dee rawatina nga fekk loo xam ne dafa leer ba mel ne jant taylu sun borom bëgg mu dugg ci dënn yi taylu sell yow sax boo takkoon sun borom wan la moo tax aaya jooju moom xam naa ne a sun borom moo ko jagleel waaye nag ci biir jagleel googu yàlla na ci sun borom dugal nu bokk ko ak moom kon defe naa war naa baax noonu jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Saliou euh, war naa baax noonu waaye war naa des tuuti ndax itam soxna Xadi dañuy wax ne ab yarakat la woon donte daane ci biir daara ju ne yaree waaye ni Serigne Saliou doon tarbiya ci góor ñi daa mel ne noonu la doon tarbiya ci jigéen ñi te Serigne tarbiya daa am ay melokaan yoo xam ne du ñàkk mu làmboo ko léegi nii da ngay gis ne dañuy joxe gone fi barab waaye buñ ko yóbboo fi kër dañ naan ah gone gi day gone ak sa bàjjan rek mel ne gone ak daa wër te mel ni gën te daa mel ne soxna Xadi moom gone yim génne kum ci génne daa daara joo ko yóbbu day mel ne dana mat sëkk ca daara ja loolu mënta ñàkk ndax ñi yoroon moom boo yoree si bët képp di xool boo demee da leen di yërëm ndax daawuñu aat ndeku moom fu ñu toll mu ngi leen di liggéeyloo waaye fekk leen ci loxo neen ci ñoom ñi mu yaroon man day ba ma fay dem daw mu ko gis te ku mu def loo it da nga bàyyi xel ni kii lay jëfloo kat mi ngi teg bëtam ci yow te sa jëf ji sell te jariñ la rek la bëgg kon day mel ni noonee mu taxawoo doo ngay jóge ca daara ja ñëw mu di leen faj ak di leen xiirtal ci ñu dellu àggale seenug tërbiya ñim yoraloon boppam taxut de si wax waaru biir la leen defoon wax ne booy ñu te mënuñu woon a booy waaye nag ñu mata yërëm lañ ndax sonnoon nañ coono bu mettee métti sonnoon nañ ko mësuñoo neenal mësuñoo ne ci neen li nga wax ne gone ak saa bàjjan man léeg-léeg moo déggee ñu tudd ko damay jaaxal ndax li may jaaxale mooy kër yi ma xam di kër sëñ Saliou dama fee xamul gone saa bàjjan li ma fi xam mooy gone yu baax waaye nag moom mi ñuy tudd di wax mbiram nag dafa ne ca njoloxtan la moom ñi mu yor ko ci yàlla dogal sa boroom kër gott ba doon ab dëkkam danga am fit wu toll ni ak jom ju toll ni man fa ànd ak moom xeebal sa boroom kër wala yeb ko mbaa nga naqari tontu mbaa nga dem pànk di xuloo kat loolu moom daf ko daa dindi ba mu jeex tàkk biir bi mu lay yar ba mu wóor ko ni foo dem doo fa yóbbaale lu jikko ju rafet yaakaaruma it ni ñi jaar ci loxoom mu yóbbu leen ciy barab ñi dellu siwaat bari na dellu si nu mënta ñàkk ndax lu yàlla dogal la waaye bariwul te ku ca dem bay dellu si itam ñu la mën a laayal lay woo xam dañuy xam lii lu yàlla dogal la waaye du sax ñàkk naqare amee kon moom jëfam moom foo xool gis seere su wane ni ku rafet jëfa ngi ku rafet nu muy jëflanteeg nit ñaa ngi foo xool itam gis résultat kon sunu borom yàlla na ko fayal te taas na ci barkeem ci barke eh, xam naa ne jataay bi ñu ngi koy amale fii ci kër Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ci teewaayu eh, soxna eh, Mame Boussa Mbacké mi nga xam ne mooy magi soxna Mously taawu Serigne seex mu feggoo ak soxna Mously ak ay rakam ngir waajal ziar bi nga xam ne mooy bëgg am ci kanam tuuti incha allah ñu dégg kàddu yi Serigne bi yooyu soññee waaye nag muy soxna su tedd di soxna Khady Mbacké moom Serigne Saliou di waajuru Serigne Cheikh turandoo yi daje dañuy tàggatoo ak auditeurs yi rek ànd ak ñoom dem ziare ji Serigne Cheikh déglu kàddu yi nga xam ne moom lañ fay jëlee.